fii jamono toll man def naa sama tënk ne bu mat bu amee fukki at ci kanam góor euh, gun may seet maanaam mooy janq ku ma su sëy pour mu àgg ci moom dina dem ci kër docteur man étude boobu laa def li tax ma def ko nag ak fi ma ko teg naa ko waxtaanee balaa maa waxtaan wee jeex balaa ko leeral xam nga bu njëkkan mag ñi dañoo aman maanaam li nga xamante ni moo daan vidage seen seen bopp seen seen yaram di dàkkaaful ak seegut loolu nag gisuma ko ci jamono ji gis nga oto bu dee daw ba yàgg huile ba ca nekk day dee. ñu def vidange loolu amatul fii baa boog bareetul mag ñi la kàttan kattan gi leen yàlla mayeen ba dañuy am juróom benn fukki at di am doom di mën a sëy ba mel ni comme xale loolu léegi xewi na. li tax mu xewi nag mooy ñàkk gëm gàncax ñàkk mën a lekk gàncax ñàkk mën a dund dund gu baax su ko defee fii góor toll tey nga xam ne fi war na nekk ci digg dënnam ci lay commencé jël li ñuy wax Viagra. loolu boo ko doon xayma ci ban âge bi nga xam ni ci nga war a toll pour jël garab. wala âge bi nga xam ne bii. parce que waaw war nga ko jël. di ko jël fekk yaa ngi ko jël waaw xam nga âge fanweeri at ak juróom yaa ngi ci digg xale ñeent fukki at yaa ngi ci yaa ngi door a mat góor noonu leen ko tënkee 40 ans la ñuy wax ne ci la góor di matee góor léegi léegi boo xoolee âge de 25 ans jox naa ko fi garab 19 ans jox naa ko fi garab 30 ans jox naa ko fi garab 40 ans jox naa ko fi garab. nga gis ne kon loolu chaque jour du day gën a wàññiku mais day gën a yokk kon ku yóbbu gën a gëstu luy faj góor parce que fan jëmi baaxul ñii nee nañ lekk gi la ñii nee nañ seetaan bi ñuy seetaan affaire sexuelle bi la ñii neen yombal gi jigéen yombal góor ñi la waaye man ba ma ci gën a jàpp mooy lekk gi la ak ñàkk toppatoo sa bopp ci yan gàncax nga war a di jëfandikoo chaque 15 jours amna lo wara nan wala chaque 1 mois amna lo wara nan ci lan la lan la léegi nak ñu dem ba jamono jo xamanteni bi da nga gis ko xamanteni bi dañ koy may set mu tok ñetti fan ñu ne ki dañ ko tak xala est-ce que tak xala la est-ce que du nekkul ne ñàkk man bi mom lañuy wax xala. maanaam xala bi prétexte la. waaw ok prétexte la. très bien dañ koy mubo est-ce que non la kon mubo bobu mo ëpp. ndax xalaa li koy indi mooy baatin la baatin bu ñu liggéey pour def nit ki ne bu mu laal bu mu seq ak jigéen ji bu mu seq ak jigéen te loolu dafa am fu ko daan dugal te loolu jamono ban ko daan def booba jamono jooja jigéen dafa jaxe woon nit ki bëgg jigéen ji nga ñëw fekk ko si mu iñaanee la ko mu def la loola mais léegi xoolal ñaata jigéen ñooy soxla sëy góor ñi mënuñu ko kon pour ñi nga xam ne dañuy déglu te xamuñu lan mooy xala xala mooy awrawu la pax du jóg bu la ndaw si raayeeg boo ko jegeeg nu ngeen mën a def du jóg kin takkul xale nag day jóg di wàcc day am doole di néew doole lii mooy différence bi léegi nag kon problème bi lan la prétexte la kon loolu prétexte la ñu ne la dañ laa takk xale wala ñu ne jigéen ñi dafa am soccet même jigéen bu amee soccet góor daana ci rey boppam ba dem ba gaañ ko wala mu gaañ boppam di naam sax bari ci médecin yi ñu ne d'accord na soccet am na mais ah kay am na soccet am na waaye góor jigéen ji mu daan takk daan am soccet mu fanaana cee rey boppam ba kaang bi fofu fofu mooy xolleeku moom góor gi loolu mooy góore yaa ngi dégg waaw su ko defee nag loolu lépp bu demee ba amatut ni góor ñi néew na néew doole goo xamante ni bii da ngay na nga gis koo xam ne awraam mën naa laal jumba xam bu njëkkan alde foofu lañ ko daan takk waaw ñu baal ma ci kaddu gi bu mu taxaw maanaam bu bu maanaam bu koddalee ñu baal ñu baal ma parce que njàngale la ñuy def bu koddalee bu jógee comme ni fas di dóoree awra bi ci biir bi góor daana def noonu ci jumbax bi léegi est-ce que loolu bareeti na dooley góor foofu lañ ko daan natt te am na garab yoo xamante bi boo ko jëfandikoo loolee lay indiwaat cosaan loolu lay indiwaat ba paré nak ñu maanu ci garab yoy motax ma xamné est ce xam nañ fas di fas batay nit nekatu nit batay fas di fas ba légui fas sa bo gisé awru bi genn mën nako yobbu fofu mako bëgg yobbu kon légui fas di doon fas ba fas mën na lolu waaw fas di doon fas batay mën na lolu nit mënatu mënatu lutax lolu